commissaire Cheikhna Cheikh Sadibou Keita maa ngi lay nuyu. sant bu baax a baax maa ngi lay delloo nuyu. nga nekkoon njiitu OCRTIS maanaam kuréel gi nga xamante ni euh, mooy xeex lépp lu jëm ci wàllum trafic de drogue tey jii laaj bu njëkk biñ lay laaj mooy sa xalaat wala sa analyse ci euh, garde du corps yi nga xam ni souvent dañuy sol ay yére yi niroog tenue euh, policiers yi ak gendarme yi fii ci Sénégal liñ koy gis bari na ban jàngat nga ci am. waaw li ma ci wax mooy loolu problème bu yàgg réglé la mooy alkaati yi seen tenue gendarme yi seen tenue militaire yi seen tenue dafa am cadre bu ko définir définir ko wane ni ñoom lii lañ war a sol te ñoom rek ñoo ko war a sol kenn waru sol kenn warul sol lu nuroog loolu parce que dañuy bañ jaxasoo bi nga xam ni day gàllankoor jàmm ji dem ji ak dikk bi day gàllankoor sécurité population yi day indi jaxasoo bi nga xam ni su dara amee kenn du xam kan moo ko def suñu ñëwaatee ba tey ñu rappelé waat loolu fu ñu wax loolu rappel rek la dañuy fàttali mais loolu mësut a nekk li nga xam ne état bi def ci gëmm tey nag bu fekkee dafa am ñi nga xam ne am na lu point de vue pour wala contre ceci salaat dañuy wax rek waxu mbedd mais loolu du affaire mbedd affaire yu sérieux la il faut que nit ñi bàyyi di sol tenue loolu amul ci benn addina soo demee ci yeneen réew yi doo fa gis benn ministre bi nga xam ni dañuy jël ay tenue alkaati jox ko ñi nga xam ne duñu alkaati parce que dañ koy garder ay tenue militaire jox ko ku dul militaire ay tenue jox ko ku dul gendarme loolu nañ ko bàyyi seen borom nekk garde du corps nga sol sa yére yu normal comme ni garde du corps yi def def garde ku la neex soo demee yeneen réew yi bari na ay nit yu am garde du mais soo leen gisee ñuy dem ay mbubb yu normal ay gilet yu normal sol ay costume yu normal sol dem seen yoon kon nanu dellu si waat xel yi nit ñi bàyyi waat fi ñu aj lépp bugg nag léegi ñu fekk leen ci foofu ba ñuy jox ay autorisation ay nit ñi nga xam ne duñ militaire duñ gendarme duñ policier ñuy sol tenue militaire gendarme policier wala lu muy nuroo loolu ku ko def yoon dina daal sa kaw. ci euh, commissaire est-ce que yoon am na lu mu prévoir par rapport ak ñi nga xam ne dañuy sol tenue euh, comme policier yi comme gendarme yi est-ce que am na ay daan yu leen mën a xaar ci mbir mi. waaw xam nga du ma dugg ci détail parce que mënu joxe détail yu fii. Mhm. bi nga xam ni. fa lay nekk muy cadre li ñuy wax usurpation de fonction mooy mbubboo li nga xam ne nekkoo ko di ci jëfee muy usurpation de fonction jëfe alkaati te doo alkaati jëfe gendarme te doo gendarme jëfe militaire te doo militaire ak loo ko mën lu loo ci mën a duggee da ciy wut wala da ngay bëgg nax nit ñi ci gis-gis loolu usurpation de fonction la ko tubaab waxe mooy mbubboo li nga xam ne nekkoo ko ci biir boobu la muy classé infraction yi nga xam ne yëpp nag dafa demee noonu parce que ki dem bay sol mbubb mi nga xam ni da lay féeteloo fenn te bokkoo ci yaa ngi commencé dugg ci domaine boobu ci biir domaine boobu nag entre jëf sol ko ak jëfe bi am peine yu fa nekk yi nga xam ne loolu suñu demee ba ci kanamu juge bi dina ko wax mais ay délit la mooy ay ay ay yu mag la du ay infraction comme kuy dawal oto ñu gërbal mais ay délit la parce que li mu yàq dafa bari. Euh, commissaire ñu gis tamit euh, wàllum nervi muy côté opposition muy côté pouvoir dañuy gis ay nervi souvent euh, loolu ban jàngat nga si am aussi. nervi da dul jaadu. yàgg na fi am nag ci biir temps politique bi mu am ay nit ñi nga xam ni dañ leen di utiliser ci biir temps politique bi mais avant dafa mel woon nii avant mu ngi yemoon ci biir période élection yi wala mu nekk ci période ay renouvellement de carte ci biir adversaire politique yi naan kii dafa indi ay nervi mu doon significatif euh, demoon mais léegi dafa xaw dem dem ba dañ ko structuré nit ñi di ko institutionnalisé mu mel ni seen armée wu bopp ci seen biir di leen jox ay tenue di leen ay fetal di leen wutal def du n'importe quoi loolu jaaduwul quel que soit le camp auquel ça appartient dès que mu ngi commencé perturber ordre bi nii rek jot na li nga xam ne yoon daf ko jox ñu appliqué ko parce que yoon daf ko tere yoon dafa tere bépp comportement bi nga xam ne dafa di li nga xam ne day troubler ordre bi wala daf lay jox autorise xaw lu xaw mel ne autorisation nga def dara te fekk loolu yëpp waroo ko def nit mën na garder mais déjà il faut que ñu gën dem sax ci régler problème mu ku bugg garder nit nan nga koy garder fan ngay taxaw lan nga war a doon ba état bi xam ni yow mii soo jógee da ngay te doo alkaati doo gendarme doo militaire quoi il faut ñu àgg foofu pour que lépp rentrer dans l'ordre parce que suñ ko deful ay nit ñoo jël ay nit former seen ay armée former seen ay bagage teg seen kanam ba noppi nag bugg wax kenn du leen mënal dara Euh, ñu gis maire bu Dakar euh, démb def na benn déclaration euh, di dànkaafu Antoine Félix Diome di ministre de l'intérieur Barthélémy Dias nee na bëggatul gis nervi ci biir koñam fa mu daal di dëkk parce que nee na bu leen fa gisatee moom tamit dina riposte dina ko defanteeg ñoom loolu loo ci xalaat commissaire Keita xam nga ñoom Barthélémy Dias ak ñu mel ni moom ñoom danoo dëkk ci jàmbaar jàmbaarlu di woote ci seen bopp di xëccu ay dëgër fit ba noppi nag di xëccu jël autorité yi di leen dëggaate di jàll soo nee président de la république duñ sax Macky Sall la ñuy wax pour mën ko dëggaate pour que lu mu wax waxu nit nekk nit ku ordinaire soo nee ministre de rek ñu François Diome pour mën ko dëggaate mais moom xam na ci boppam ni ay riposte suma ma gisee du moom mooy régler li nga xam ne mooy xel ci mbedd mi te war na yemale boppam de toute façon lii ko question yi nga posé dafa yóbbu ci benn univers bi nga xam ni on se rend compte de ce état bi am na lu ñu dese ameel il faut mu delloo ñu ko mu delloo ñu ko mooy yemale ku nekk ci li nga war a yem yemale ku nekk ak koo mënti doon ci am ci pouvoir su fekkee autorité nga ci li nga am ci droit su fekkee citoyen nga ak autorité nga ñu bañ a bàyyi nit ñëpp ku nekk def ay déclaration doon war a commencé ci ku wax loo warul wax yëkkati sa baaraam ci foo ko warul wax ñu teg la daanu yoon parce que suñ ko deful ñu mel nii dañ fiy continuer def ay déclaration di wane seen i njàmbaar ñu leen dégg li di wax dégg li di wax dégg li mu wax Macky dégg ba dootuñu amatee ay institution lépp ci mbedd mi lay doon te loolu wees na sax agg na nañu ñun suñu dara baaxatul fi mu nekk nii il faut que il ñoom ñu dellu si waat leen ñu am comportement yu normal te dafa war a jaral état bi lu nekk parce que lii ñuy wax fi loo ci xalaat non non fi nga ko waxee fa waroon jeexee quand quelqu'un tudd ministre de l'intérieur teg ci baat yi nga xam ni dafa amul orma amul respect amul leneen ci institution dañ la war a arrêter immédiatement baat bi je crois suñ demee ba ci kanam dootu ko defati Euh, ñu gis ne tamit euh, noo xalaatee phénomène Sonko ak ay garde du corps am ñi muy àndal euh, ñu wër ko gis nga ni fan yi sax am nañ benn problème bu ñu am ca côté Mbour ay jàppante yu doon am si diggante garde corps Sonko yi ak askan wa nekkoon foofule doon am accrochage ba ñu tëye si ay garde du corps Ousmane Sonko naka gisee Ousmane Sonko ak ay garde du corps. xam nga mooy li ma doon wax tout dafa war am li nga xam ne bu ñu nit war na am garde du dañu war a delloo loolu ci lan moo mën a nekk ba mu am garde nan lay amee garde corps yi ñooñu fu ñuy taxaw ba état bi xam ni ñii ay garde corps lañu mais bu demee ba yow loolu da nga koy organiser mu presque mu nekk sa armée wu bopp ngay wane ni yow da am ñu lay aar am nga xaalis bu la jox loolu nga solo leen ay tenue ñu noor ngay militaire di jaagir jaagir di tëb di dal da ngay dem ba ñooñu danger public la ñuy doon parce que dañuy foog ni gannaaw yow à part yow yàlla amul. loo leen def ñu def ko te ku la jege ñu dóor ko te dara du ci nekk ba mu ak ci loolu moo ñu indi ci événement ci kii quel que soit lu ñu mën a reprocher population yi garde corps yi bu ñu demee bay dugg ci ay kër di saccage ay daal di di yàq di ñuy gaañu ça veut dire que ñoom dañu foog ni ci situation bi ñu toll tey ñoom toll nañ ci liberté ak doole fi nga xam ni lu leen neex ñu def gannaaw tooñ ki nga xam ni moom mooy seen njiit suñu tooñul kii seen njiit daal ñoom lu leen neex ñu def loolu mënut a nekk il faut que ñu arrêté leen ñu tas problème mu garde corps yi réglé waat ko ba ku a am garde corps ñu xam ne lii am ci garde corps il faut que ñi nga xam ne dañuy doon garde ñu bañ leen ramasser ñu mbedd jox leen ay tënu ñuy jaagat jaagat ci ñu xam ku nekk parce que réew yëpp noonu la ñuy doxee kuy nekk garde da ngay xam ban boutique nga jógee ban koñ nga jógee lu tax nga nekk lu la autorisation nga def ko il faut ñu arrêté réglé loolu définitivement jàmm am ci réew mi suñ ko deful loolu nag ñun ñooy continuer di entretenir et a en appelle à la war na jóg régler détails yooyu parce que wax ji bari na ci côté yooyu je remarque li may intervenir presque même sujet bi la avec des variantes près donc état bi war na jóg libérer peuple bi. arrestation bu euh, journaliste Pape Alé Niang gannaaw ba ñu jàppee ni dafa fësal ay information yoo xam ne euh, c'est confidentiel secret de défense la warul fës en tout cas ba tax na ñu arrêté journaliste bi di Pape Alé Niang ban lecture nga documents yi nga xam ne mi ngi génn te warul génn. xam nga réew secret dafa bokk ci li yore réew parce que ñi yore nguuru réew bi askan bi moo leen jox pouvoir. ñu yore ay pàcc yu bare yi nga xam ni am na ci li nga xam ni moo yore ay secteurs yi nga xam ni dafay day day sensible que ba kenn du ko sànni ci mbedd mi réew kenn du ko gouverner ci grand place réew kenn du ko gouverner robinet réew kenn du ko gouverner ci biir car dafa am ay endroit yi nga xam ni balaa nga fay dugg il faut que nga ñu ubbil la am li nga xam ne balaa nga koy dégg il faut ñu boole la ci am nga xam ne balaa nga koy gis il faut nga nga war ko gis pourquoi parce que noonu la réew di taxawee pour sécurité peuple bi pour seen tranquillité am na ay nécessairement ay secret yi nga xam ne bokkul ci li peuple am droit wu exiger ñu informer ko ci parce que moom moo joxe làmmiñam foofu ci secret yooyu am na fi nga xam ne journaliste mënu fa àgg daal di ni moom am na droit publier wala mu diffuser wala mu xam wala mu gis surtout su fekkee ni matière u défense la muy aar réew mi aar doomu aadama yi su matière ak matière u dundu institution yi mooy li nga xam ni mooy sunu ay euh, bànqaas yi nga xam ni ñoom ñooy yore taxaw réew mi dafa am ci seen biir ay ay documents yi xam ni si secret lay dox loolu àddina bi noonu la mës a doxee noonu lay doxee su ñu demee nag ba ci réew mi nag ñu ne non non non diw am na droit def diw am na woon peuple bi ni lii moo xew loolu subversion la yow da nga bugg yëngal réew parce que defu informé woo parce que lii am na lii am na lii am na loolu bu amee dañu war a arrêté ki ko def Pape Alé li mu def yëpp waru ko def warul publier document estampillé secret warul publier benn document bi nga xam ni secret défense la secret des institutions secret d'état la d'une manière générale waru ko publier parce que su ko defee day yëngal réew mi yëngal réew mi boobu nag léegi ñàkk yëngal réew mi moo tax ñuy teg loolu ci beneen côté tere képp ku ko def te moom xam na li mu def journaliste bu mag la Euh, léegi dernière question commissaire Keita fan yi ñu ngi wax euh, mbirum euh, quarante cinq milliards de francs fa yoo xam ne ministre ministère de l'environnement en tout cas ci jëndum arme ay arme yoo xam ne dañ ko doon jënd ñu bëri nag jàppee ko scandale yow ban lecture ngay def si coowal quarante cinq milliards yooyu la gis nga réew mi dañuy tàmmal ay waxu milliards ak ay scandale ak wutum scandale réew ci jàmm lay dox normalement lii nga ma wax ni ay arme nga ma wax arme yu passation de marché pour arme kenn du ko def penc kenn du ko def robinet kenn du ko def assemblée nationale dafa am ñu ñu jox ay prérogatives pour que ñu aar réew mi ñoom ñoo am maîtrise conditions yi xam ne ci la ñuy jënd arme te su ñuy jënd arme kenn du ko def passage passation de marché public yii ñuy def fii woo ku nekk daal ni yow kat ñun danoo bëgg robinet danoo bëgg kuddu danoo bëgg sa déedéet ay arme la ñu wax bis bu nekk ngeen dégg ko ci yeneen réew yi nanka la ñuy def ba arme jóge fii dem fële jóge fële dem fële donc ñun nan dellootuwaat suñu xel te xam ne lii mook secret yi ñu wax ci la benn ñi koy génne yi tamit man du ma dugg ci est-ce que ministre bi scandale la du scandale quarante cinq milliards ñi koy génne lu muy wut ñun foofu la ñu war a informer suñu bopp ñi ñuy génneel suñu ay secret di ko teg ci bedd mi lan la ñuy wut est-ce que dañuy informer bi est-ce que ñoom li ñuy def avancé na dara déedéet avancé wul dara li muy wut mooy réew mi yëngatu li muy wut mooy nit ñi wàcc ci bedd bi naan suñu quarante cinq milliards ñu dugal ci fetal yi suñu quarante cinq milliards te xamuñu ni moment bi ñu toll moment wu armé wu parce que li ñu wër ñun ci fii Sénégal dara àndu ci jàmm dara àndu ci ak seen fetal ñàkk mat loolu nan ko waxante mu leer fii ñu toll nii diggante Mali Burkina Faso Guinée Guinée benn réew bu mel ni Sénégal dara àndul ak mu fetalam ñàkk mat donc nu ñu mën def ba sunu fetal mat nañ ko def peuple bi nag ànd ak si ñi ko yore te bañ ànd ak ñi nga xam ne scandale rek la ñuy man loolu laa xalaat ci loolu. commissaire euh, Keita maa ngi lay jaajëfal. merci beaucoup. commissaire Keita Cheikhna Cheikh Sadibou Keita may euh, fàttali ne moo jiite woon office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants ñu gën ko xam ci OCRTIS.